nee na li ñu waroon a wax lépp wax nañ ko. nit ku nekk. nit ku nekk. ni ko yàlla doolelee. ni ko yàlla doolelee. noonu rek lañ ñëwee. gis nañu ba gis nañu ay dànk. gis nañu ba gis ku indi ay dànk. indi ay sidéem. indi sidéem. kooku amoon ay milliards. kooku ba amoon ay milliards. dina ko indi. nit ki loo bañ ku la ko fay la ko fay. bul ko leble. waaye nag lii muy def. waaye nee na nag tubarkalla waa ni balaa ko sekk lii muy def. du lu mu àbb fenn de. du lu mu doon fenn de. du lu mu doon fenn. lu mu lu mu nàmp la. fekk ko fi. fekk ko fi mu deretam. ngaa yor drapeau bi ñun ñëpp askan bi Faramareen ak bépp Faramareen ñoom ñu am waaye gis nga Faramareen dafa nekk famille boo xam ne c'est une industrie musicale. waaye nee na gis nga Faramareen dafa nekk famille boo xam ne c'est une industrie musicale. kenn rek kenn rek yàlla mën jox mu yor drapeau bi yóbbaale ñëpp géew. ni nee na moom Pape Ousmane ni Pape Thione Seck meloon ci moom. waaye noonu la mel ci ay nee na moom mooy seen mag mooy seen xalifa. ñun coon lañ daan topp moom Papa Ousmane Papa coon la daan topp di ko rey. waaye nee na ñoom xale yi. waali la topp moom la ñuy rey ndax mooy seen idole mooy seen référence tamit na ko sëkk. nee mu nekk ku ouvert. wax dëgg yàlla. man mën naa bañ a gisante ak moom mais du may toog di observé ak di xool. wallaahi moom man maa jàllale. na man naa sori lool waaye fa muy toog di xool ak la muy gis xam na ne li gis baax na te seeral na ko yàlla. Tafa bi ko waxee démb. nee na Tafa ngi nii bi ko waxee démb. jibi kenn saa may ko jàmm. jibi kenn saa may toog may ko jàmm. loolu dëgg la. wallaahi. nee na ma mu ne ma waali sama fils. nee na mu ne ko waali sama fils. mayu ma jàmm bi ma ko waxee ba ba chaque deux heures de temps bu woo. nee na chaque deux heures de temps bu woo ko ngir daje bi fii tey. ma ne ko Tafa ñu ngi lay xaar parce que moom. mu ne ko Moustapha ñu ngi xaar ndax moom a war a wax heure bi Wally Seck di nekk ci kër gi ngir ma ñëw. léegi bu ñu toppee wax bi Pape Ousmane nee na bu ñu toppee wax ji fajar nañ ñu ñibbi. xam léegi lan moo des. nee na mu ñaanal li des mooy. li des mooy. ñaan rek. ñaan rek ci des. ndax mooy gànnaayu jullit. ndax mooy gànnaayu jullit. yàlla la fan ko cat. amiin yàlla la fan la cat. amiin gudd fan. amiin gudd fan. amiin ak wér. li gënal nit ci yàlla mooy képp njariñ. li gënal nit ci yàlla mooy képp njariñ ndax nit njariñ. macha allah am na njëriñ. waaye balaa nga sekk am nga njëriñ. kon nag yàlla na yàlla dafa cat. yàlla na yàlla dafa cat. njëriñ lu mu ren. bu déwénee. bu nga mën lu ko raw. bu déwénee nga gën koo mën. kenn ku nekk jàmm da ngay def muslim bismillah mbooloo mi ñu dalal loxo yi bàyyi mooy ñaanal doomam. <laughs> papa Ousmane mooy ñaanal doomam mbooloo mi ñu dalal loxo yi te bismillah ñu def Fatiha. nee na ñu def Fatiha. ñetti inna anzalnaahu fi laylatul qadr. ñetti anzalnaahu fi laylatul qadr. bu ci nekk ànd ak bismillahi rahmaani bu ci nekk ànd ak bismillahi rahmaani rahim. tëjee ko salaatu ala nabi. tëjee ko salaatu ala nabi. mën na lépp mën na lépp. bismillah bismillah. amiin amiin amiin amiin amiin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد بن خاتم ما سبقنا الناس بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه أيها الذين آمنوا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على وسلام آمين آمين آمين آمين آمين بابا